liggéeyal Serigne Touba ñu ngi indi rek ay kàddu yi cant ndax programme bi dafa am nu mu nosoo noo xam ne euh, faw ñu jëkkanteeg waxtu wi ndax leen war a def euh, takku na lii nga xam ne si Abo Madiana si Abo Guèye di koo xam ne ku miinoon daaree Serigne Saliou di nga ko xam ku miinoon kër seen soin bi di nga ko xam ku miinoon kër seen ablaat di ko xam doon koo xam ne it euh, taxawaayam ci xel koom taxawaayam ci dongay tarbiye yi mën naa tax buñ dajee di soññante kii yàlla suñu borom def mu doon boroom jamono di sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu te ànd wér moom mu defoon ay béyit ci moom béyit yi mën a dimbali ku ne mën a soññ ku ne mën a dimbali ku bëgg a dem moo tax ñu ne dañ koy ubbee suñ ko ubbee nag mu doon loo xam ne dafa am lu am solo ci am murit mooy sëriñ bi dafa doon wax ne ëpp leen yéesu leen gimmi njàpp leen ndax ku ëpp sëriñ bi day ñëw dangay ñëw ba noppi sëriñ bi ñëw ku yées it sëriñ bi day ñëw ba noppi nga door a ñëw doo xam sëriñ bi waaye ci gémmiñ jàpp nag mooy taseeg sëriñ bi bañ a topp ci ginnaaw yooyu yëpp daluñu Cheikh Mamadou Muntaxa nag tey mooy borom jamono mooy sëriñ Tuubaa woyof lool woyofal jëmmam ba nga xam ne dina tax ku yàlla dimbaliwul doo xam tolluwaay bi ñu koy jox doo xam wàccuwaay bi ñu koy jox moo tax fàttalante ci du mën a ñàkk loolu nag mi ngi ko donnee ci maamam maamam donnee ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day woyofaloon na boppam te fekk na lu yàlla bind moo tax suñu borom mës na koo ganale ne ko tey dama lay ganale ñaar yi nag boo ci bëgg dinaa la ko jox mën naa la jox mulkullahi waaye mën naa laa defit ne abdullahi tànnal bu la ci neex rek ma defal la ko rasulullah sallallahu alayhi ne ko man de tànn na abdullahi mu ne ko moo gën de ndax mulkullahi bu la ko joxoon dara du ci des di ngay def di dindi ci kaw ak fépp yaay def yaay dindi waaye bu ñu bu ñu àggee ci li ma nil mulkul yow ma bis pinc boo tàllalee sa loxo doo ca fekk dara lillaahi waahidul qahhaar lekk cee topp abdullahi ji mu jël nag sunu borom dafa wëlbatiku di ko liggéeyal looloo waral inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ndax yàlla suñu borom ak màggam ku ne xam na ne wéet na fa mu ne waaye sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa day wax ne bañ ko gisee ba bañ ko noppee gis boromam rek la fi nekk loolu sëñ Tuubaa mësta am xëy ku mu xëyal ku dul suñu borom mësta gontal ku dul suñu borom mësta jànqal ku dul suñu borom mësta rañaanal ku dul suñu borom léppam da jox suñu borom illaa man na woo kulliyati qad tawajjahat midaadi wa aqlaami wa qad kaana li man naa waaye nag bañ ko noppee gis sëñ Muntaxa nee na ku woo sëñ Tuubaa suñu borom moo lay wuyu kon nii nu def ne dann sëriñ bi mënta ñàkk sëñ Muntaxa nag man ci dongo boo xamante ne yàlla dogal na musuma génn Hizbut Tarqiyyah bi ma amee ak gindiku ci xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek am solo ci Hizbut Tarqiyyah laa ñëw ne ci ginnaaw sëñ Aatu yàlla suñu borom dimbali ma musumaa xëy fu mu ma santul musumaa gont fu mu ma santul musumaa fanaan fu mu ma yebal ñu def fanweeri at ak juróom-ñett yàlla suñu borom dogal tey jii liggéey bi mu mel ni tey dañ ma dañ maa tapp di ma ci liggéey loo waaye nag toppee laa gënoon mën wax naa ko gars yi waaye nag ànd gi ñu ànd fas naa yéene incha allah sañ-sañ du ma ko jiitee liggéey bi ndax loolu sànku rek ci la jëm ndax bis dina ñëw ñu tëral ma ci jaat denc ma man weesu naa sax fu may ñaanee na yeex sama yoon newu ci dañ maa topp di ma liggéey loolu te laajuñu ma kon waxtu ma waree dem naa dem sama yoon newu ci li sama yoon ne daal dinaa ci wax mooy damaa bëgg nu boole suñu bopp topp ci ginnaaw sëñ Muntaxa mën na maa juum de waaye xam ngeen lu tax dina dina néew lool mooy duma ma xëy te sëriñ bi xamul ci lu ma ne du ma gont mukk taxawul ci lu ma ne fasu ma ko yéene kon nan boole suñu bopp te rafet njort barab yi ñu am di ci waxtaan ak di ci nos nañ ko gën a gën koo fonk waaye ku ñu gis na gis taaru ba lislaam na gis ñu ànd doon benn te loolu mooy ndigal li nga xam ne moo ñuy ubbil buntu asamaan moo ñu untu buntu ubbil buntu njëriñ moo ñu indi ubbil buntu yokkute dafa am nag lu am ñaari yoon rek moo mës a am ba àdduna sosoo ba tey sunu borom dafa jël rasulullah sallallahu alayhi muy woote yoonu dëgg jëmale ci àjjana waaye iblis it suñu borom kàttanal ko muy oote gi réeral nit ñi yonent yi ñebal yépp dara taxuloon lu dul ñu gindee ngir nit jëm ci yoonu njub loolu di dox ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñëw di xaatimu nabiyyin wa imaamul mursalin ba mu defee liggéeyam bi ba liggéey bi mat ñam àndaloon ci la suñu borom di tànn di indi ñi nga xam ne ñoom lañ jiital ci jamono kon ku ngeen fi gis dégg ngeen ci woy yi léegi ngeen dégg say aboo ngay wax ne sëñ Muntaxa xare na Badar xam nga ne kooku kuñ déyul doo ko wax kon damay bañ ñu yaakaar ne lislaam jii ak liggéeyu sëñ Tuubaa bii xel mu neex ak copte ak bari solo mën naa tax kenn doon ci dara loolu mënta ne wallaahu yastafi min al malaikati rusulan wa min annaas moom rek ay tànn kenn du ko tànn kon sëñ Muntaxa bu ñëwee ci ban jamono la ñëw mi ngi ñëw ci jamono joo xamante ne iblis noon bu bon bi dafa jékki-jékki rek indi ay ngànnaay yoo xam ne ñu baax ñi xamuñu ko woon ndax ñu baax ñi ñoom tarbiya lañu indi woon ne si feet di yar ñi nga xam ne bu ñu leen yaree ñu mucc mën a doon ñu baax waaye iblis indi ngànnaay yoo xam ne daara tarbiya lu mu sori sori sori ak lu mu ruqe ruqe ruqe iblis dugub indi internet ku ne xam na ne daara seen soye bu kenn mosu faa ne yore rajo rajo rek kenn mosu koo ñeme nun ñi doom ba ñu bi di taxawloo njàngum xasida ci daaraan yi ci xel kom rajo yi ñu wutoon du ay maanaam ay magnétophone la ñu wut yoo xam ne àndut ak rajo ndax xam gu ñu xam ne sëñ bi bëggul ay rajo ci ay daara defe naa lii su ma joxoon kàddu sëñ abo dina ci jàngale lu gën a xóot tarbiya àndut ak di déglu loo xam ne ndax da nga naan si feet di sore yu bon yi di sore xumb xumb yi di sore lépp luy jàq yàq jikko ak u mero loolu tey ji waaye bi mu yombatul nag iblis yaakaar ne naagu na yaakaar ne gañe na xare bi dafa xamul suñu borom moom moo dooleel yonente bi saa salaam moo dooleel sëñ Tuubaa te ndam la lislaam dina am nan lay amee ñun mës nañu siyaare sëñ sëñ Saliou 1992 moom mënoon nañoo tuddee mënoon nañoo tuddee isbu tarbiya tarbiya ñun ñu ëpp ci ñun jàngum tubaab lañ jàng ñu ëpp ci ñun ñu ëpp ci ñun sawara lañu ñu gënoon jege ci ak njub nekk ci barab université muy barab boo xam ne tubaab yi yaakaar nañ ne moo gën a kawe ci soppi nit ba ba diine dootu ko yitteel ñu ñëw di ziyaare yi sëñ sëñ Saliou mu nañu lii ngeen di def du ak tarbiya tarxiya la kon bés ni ki tey tuddee naa leen hisbu hisbu tarxiya bind ko ci loxol boppam daal di wax ne jël naa bayit ñaari ñaari bayitu sëñ tubaay yi jël naa leen seere لقنت بي يا مالك الألفاظ وبت رقي حزبك الحفاظ لقنتني يا مالك المانيا يا من كفاه جنده جنده الموانيا داري كوي بند من من متد مومو اك لوخم متد بوبو ماغا تا دارا جا نيوتال واي دا لي دو تر لي دي داف تربيه مو موكو خام دو موكو فيني دو موكو سارح واي خمنا ني سي منتخب بيم nii laa ko mën a misaale dafa benn ni ñu baax ñi fañ daje woon dañu dañoo wax ne ah iblis bi indi na ngànnaay yoo xam ne ci kaw suuf seen liggéey bii ah ku farluwul day boo demee doo am ndam ah, kan mooy ñëw ku farluwul day yëpp waaf boo demee doo am ndam ana kan mooy ñëw ñëpp waaf kenn ñemewul jóg waaye sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom fàggu na lépp moo yëkkati sëñ Muntaxaa ne kii lay yóbbu waaye ba mu koy yebal da ko ne bul xam dara bul gestu dara bul yóotu dara bul joddi dara bul jëñ dara demal rek jàkkaarloo nag man rek moo tax Sëñ Tuubaa rek la jàkkaarloo mu ne ko wéttalikool xaside yi mu wéttalikool xaside yi nekkete xaside yi Sëñ Tuubaa ba mu wéetee ci géej gi fàggu na lépp jëlal naabat kitaabati yi jëlal tursi xan yi jëlal waajaxan yi jëlal lam yan xune yi jëlal laa yantax yi jëlal saaxat yi amul lu mu lijjantiwul ci lislaam ñëpp bu ñu bankee seen loxo bañ a génn ci lislaam dara léppay sotti lislaam na am ndam loolu la sëñ Muntaxa def kon man su may présenté sëñ Muntaxa day sëriñ boo xamante ne nañ ko jox suñu bopp te wane ne tarbiya gu jëkk gi sañ Tubaa doon yaree ñu baax ñi mën naa ne xasida yi mooy suñu seexu tarbiya ñooy suñu seexu tarxiya du tee genn ku ne ci ñun jokk ci njabootu sëñ Tuubaa boo xam ne moom ngay xoolee jëmmi sëñ Tuubaa loolu nañ ko def ndax cosaan la ci yoon wi te mënta ñàkk waaye nag yoon wi sëñ Tuubaa yor la ko ku yàlla bind lépp moo ko yoral boppam nun nag nan gindi ko rek bu ñu gindi ko rek dem suñu yoon bu ñu gindi ko dootuñu gis suñu bopp ndax sëriñ bi mënuñu koo sant sax lu tolloog ak xam waaye nag nañu yaru maam Cheikh Ibra lan la ko sëñ Touba gërëmee da ngeen a yaakaar ne daa defal sëñ Touba loo xamante ne sëñ Touba mënu koo ñàkk sëñ Touba ku yàlla bind mosoo ko defal lu mu mënta ñàkk waaye nag maam Cheikh Ibra li ko sëñ Touba gërëmee nee na dafa yaru dafa yaru yar boobu ñëpp mel ni dañoo bëgg xam mooy lan mu ne sëñ Modou Diouf jàtte yow dafa fàll day gërëm naa ko ne ko Mbàkke di bu ñu xamoon li ñu ko gërëmee ci loolu rek la ñuy ne mu ne. su ma ko liggéey la woon am néeg ba mu di ca war a def lépp mu def ko ca su ma kosee almet di ko taal ak ma di ca jaamu yàlla du leen xàmmee kon nañu xaw a melaat ñoo xam ne nañu dolliwaat suñu yar ak suñuy teggin dooni dongo te xam ne moo gën a wóor loolee rasulullah sallallahu alayhi sa defoon tànn Abdoulaye te mënoon tànn tànn mulku lay sëñ Muntaxa mii wala nga jël sëñ Soyebu Mbàkke ولا نجي في أبلهار جابوا سيد توابي يوم سيد أدرس لا نجوا هو بيد ربي ومشيخي أفقر الفقراء وآخر كل ما يرى لولو لولو ري ري لو خجفي باكو خجفي بدر لمي ري ري ري يالله سوي بنا مايو سابي جو باكو تفلين خمالو لير فلم تقتلوهم ولكن لا قتلوهم وما رميت إذا رميت ولكن لا رمى كون دو كن لب موما لجي بيتم لب موما kon man loolu laa ci doon dolli di sant euh, programme bi bu ñu demee ba toll ci war a nag joxe message bi nga xam ne daara yee ko moom ci liggéey bii ñu sant dinaa leen ko wax Hizbut Tarqiyyah sax tey jii assemblée général la membre yee ko moom waaye Hizbut Tarqiyyah moomatul Hizbut Tarqiyyah Hizbut Tarqiyyah sëñ Mountakha ba mu ñu boolee suñu mbokk yi nga xam ne ñoo neeroon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos daal di wax ne delluwaat leen ci ci ndeyi liggéey bi mu Hizbut Tarqiyyah mu doon génn Hizbut dafa ne Hizbut Tarqiyyah mënta doon ñaar daayira Nuuru Daarayni am na yu bëri Wasila Turbo am na yu bëri Miftaahu Nasri am na yu bëri Wakana Aqar am na yu bëri waaye lu tax mu ne Hizbut Tarqiyyah benn la war a doon nee mooy soldaar yi Sëñ Tuubaa armée la am réew ñaari armée du ci am kon armée baa ngi nii ku ci bokkul it yebal ci sa yéene yebal ci sa yéene kon armée baa ngi nii dañ ko xamee noonu nun itam nu xam ne militaire li ab civil sañ militaire sañu ko bu ñëwee ba ci kanam dinaa waxtaanaat ak sama gars yi bu baax ñu xamaat nan dañuy waajee ndax batiment bii de na xam ne université bi juróom-ñaar fukki batiment ñu ngi fi ci biir université moom lañuy ñu waajoon fanweeri milliards ak juróom-ñaar yi dégg ñu koy wax bañ koy xayma lii bokk ci woon sëñ Mountakha wax na ko nee na lii waajuñu ko woon ba ñuy nas liggéey. waaye boroom moo wax ne moo wane ne yéen mënu leen cee ñàkk feeñ waaye yàlla dogal na sëñ Tuubaa bi mu indee lii ñeent fukki million la sëñ taxa waxoon ne moom laa ko waajee xaalis bi jekk na sëñ Aatu dama lay jox ñeent fukki million yi nga liggéey ko sëñ Aatu ne ko caabi laa la ameel mu ne ko léegi kon may naa la mu mën a àgg ba juróom benn fukki million waaye fa la mën a yem sëñ Aatu ne ko yow daal caabi laa la ameel sëñ bi ree daal xam ne lii am na junj bu ci ne te lépp sëriñ bi la ba mu ko joxee ndigal ba sëñ aatu jot ndigal li da ko ne téeméeri million ba milliard waaye fii ñu toll ñoo ngi ci un milliard trois cent yu manqué tuuti bâtiment bii dina jël ñaari milliards ak juróom-benn téeméeri million dina jël ba ñu tolloo ci suuf ndax dafa am mbedd souterrain souterrain boo xam ne ci suuf la waaye imprimerie moo fa nekk boo xam ne imprimerie bi jaayul di téere imprimerie bi utul alal imprimerie bi muul téere yi sëñ Tuubaa moo ko tax a jóg machine offset bi rek bi nga xam ne moo war a téere xaside yi mooy war a téere xaside yi téeméeri million lay jar kon yitte ji am na fu mu toll fu mu toll waaye nag sëñ Muntaxa daf ñu ne bu njëkk bi may wax ñeent fukki million ak juróom-benn fukki million boobu wàllu économie la ndax ñeewante am na ci ak ñu natt ko ba xam ne lii doy na waaye ginnaaw bi ma gisee ne yéen gisatu leen ma sëñ bi ngeen di gis mu ne ma xam ne fonkeel la ma ne fonkeel nag moom du ngeen ma ci jiitu kon léegi bu ngeen ko mënee def or wala jamaa sax ànd naa ci kon foofu lañu tolloog moom kon léegi ñun am nañu laissez-passer léegi waxatuñu ñu ñeent fukki million waxatuñu ñu juróom-benn fukki million waaye yamu ci juróom-benn fukki million la ñu waxoon lépp ñun bañ tolloo ci suuf di def li ñuy wax radier radier mooy li ngay suul ci suuf ngir mu attan bâtiment bi cinquante centimètres la waroon doon ñu yóbbu ko quatre-vingt-dix centimètres kule nañ ko ci juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan yi ñu ko kule def nañ ci ñaata tonne ciment ñetti téeméeri saaku ñetti téeméeri tonne ak juróom fukki tonne ak ñaari tonne maanaam trois cent cinquante deux tonnes ciment lañ def ci suuf suuf suul ko fer bi rek feer bi keroog lañ jënd ci feer ngir suul ko ci suuf 60 million la kon 60 millions yi sëñ bi kon liggéey yi nii boo xam ne su fekkoon liggéey sëñ Tuubaa kenn mën naa dab ak xam dana maa naan leen yéen membre Hizbut Tarqiyyah gàcc ngaaraam waaye nag na suñu xel dem ci fa kay fa ahwi madhan li muhi wal madhu muhi linu xalaa yi lakin hajastu amaltamastu wa ma madahtu kenn balaayi bu fi kenn bàkk na suñu rangoon socc ko ñu xeeb jëf ji xam ne or wala jamaa suñ ko tegee suñu bët dinañ xam ne defaguñu dara kon soññee nag du mën a ñàkk ndax soññe bi mooy tax ñu am fit waaw waaw ba adama saawaro jaa bi rey yi humoo loolu du mën a ñàkk foofu ñu soññante su ma su ma aswada mu di an yasira bihim ilal ximaat yi loolu lépp soññante la xaala sayyiduna al faaruq baaduma xawlun yuri kasatal adal kurama ba tey soññante wa saadum xaala xawla xam na fa tuwama ba tey soññante la looluy jataay bii loolu du mën a ñàkk de ay murit foofu ñuy soññante mooy cosaanal lislaam kon suñu xol yi nañ génne àdduna ci biir ay salon la yoo xam ne sëñ tubaa rek ci xaj nañ ko defar ba mu set dugal ci sëñ tubaa alali àdduna na tege ci loxo yi na sëñ Bàmba dëkk ci xol yi su ko defee dañ koy jëfandikoo ci li sëñ bi bëgg ndax alxalbu kal maliki fil aadaay xol mooy buuru cëri bu ca sëñ bi dëkkee ndigal a sëñ bi rek ngay defloo cër yi waaye boo sàgganee ba leneen dugg ci sa xol nga yaakaar ne am na loo mënta ñàkk lu sëriñ bi wor nga lii daal laa ne woon naa ko ci ubbee sante ko nag sunu kilifa yi jot a ubbi jërë ngeen jëf ok Cheikhul Khadim waa koy jërëjëf euh, muy kàddu yoo xamante ni mënta woon ñàkk euh, sëñ Yuusu dolli ko ci wolofal yu am solo yooyu nga xam ni ay soññee la rek yu sëñ Abou Madiane sooy bëggee def te itte ji mooy yéene ñëpp